nuyu naa la bu baax a baax ma chérie. waaw maa ngi lay sant chérie mon amour. waaw noo def ba nga jàmm. am naa jàmm bu baax a baax. tey nag comme ni leen ko waxee ñu ngi seen ah, biir boutique Soda Pouye Fashion bitig bi nag gis ngeen ko ni mu yànjoo nii ak ni mu taaroo yaakaar naa ni ki ne si place bi moo ko gën a taaru ñu nekk nag si mois de la femme seen plateau koor di door suñu jubloo si femme yi nag a ah, war naa mën a nekk nag aja sooda daaw ñëwoon nañ fi ren ñu ñëwaat fi gis nañ fi changement gis nañ fi lu bees ana lan moo bees biir Sooda Pouye Fashion waaw Sooda Pouye Fashion day di leen sant aussi waa DN TV di sant Bathiouma Samba aussi ndax jigatuma benn yoon bañ jàppante ba tey dara ñaawul te macha allah mu ngi jàpp ci liggéey bi ba ñuy commencé benn lawantal macha allah mu ngi gën a yokk. seen plateau koor laal yokk la daa mel. laal yokku la yéen mas doole la ku mas da ngay capp masaat <laughs> te bu ma paree da ka ba da nga koy yëg. te yéen a ko déggandoo moom de fa Pouye seen léegi nag dama bëgg ñu jug xool place bi xool li fi bees xool li fi am nga wanele ko mbokku internet yi mais nga wanele ko waa Sénégal boo paree nag nga wax ma ñaata place la ñu xoolaat nan la ñuy doxalanteeg yow. amul benn ayca bisimilah. foo ñu njëkkale man gis naa fi tamit ay bijoux tamit soda. bien sûr waaw bijoux yi mooy booy def marié aussi booy def takk jàkk yi lañ lay tànnal. yii dafa mel ni Dubaay la jóge de daa mel ni jógewu fi de. yii moom du Dubaay la jóge yii moom Soda Pouye Fashion wala Fallou Fashion da nga ko mën a amee bëgg lu nice bëgg da ngay ñëw seeti soo Pouye Fashion wala Fallou Pouye Fashion waaw lii gis nga ko. bise de or la muy filigrane de or parce que or bi dafa seer am na ñoo xam ne seen doole tollu foofu ñu dem imité ko mhm. dem dem ba Dubaï indi imitation bi def ko boo ko takkee mu mel ne or lii nag ci soo Pouye Fashion wala Fall Pouye Fashion rek nga ko mën a amee Sori Pouye Fashion dafa mel ni moom dafay defal te yàlla rek tax day defal ñi nga xam ne amuñu day defal ñi nga xam ne seen poos dafa wàññeeku day defal ñi nga xam ne tamit seen poos dafa yëg. waa ndax parce que par des fois nit day bëgg te du am. su ñëwee ñu xool lu doolem tolloo ñu defe ko la parce que jàppante bi bi ñuy jàppante moo ëpp loolu. ndax loo jàppale sañ borom ma lay dolli te ñu ngi dolli ñu ngi koy yëg moo tax ñu indi lii rek pour xale jigéen ñëpp gis seen bopp. ayca yéen ko déggandoo benn TV si Sénégal soo de puy Fafaysen loo am muy juróom muy 100 francs boo ñëwee loo am di nga ñëw boo ñëwee di nga ko am ci biir bëkkit bi su ma jugee ci or yi jugee ci plaqué yi jugee ci yooyu gis naa fi ay daal tamit de. waaw yii cristal diamantel la yii moom soodo rek nga ko mën a amee wala Fallou Pouy fashion yii gis nga bu nekk ensemble par ensemble la. yii gis nga ko gis nga xoolal champagne couleur champagne xam nga dafa raar. xoolal li tubaab bi am classe xam nga ni lii very nice ci Fallou fashion nga ko mën a amee wala Soro Pouy fashion. bii bii mooy bal. bii euh, moom mooy doré. Mhm. doré cristal. bi doore cristal diamantel la gis nga ko sa c'est classe tamo bi aussi da ci jouer mais dafa melni jaratul dem HLM jaratul dem ga jaratul dem fenn nañ ñew Touba marché zang fi mo machallah sama clientèle ñong may top bu baax ndax luma bëgg lañ bëgg ma leen soagiral ndax man lu créer moy lo xamanteni ni damay wax ki ñew client bu ñew dama nan ko da ngay xew wala da ngay dem xew bu dé da ngay xew ma jaay la yefi xew bu da ngay dem xew ma jaay la xew loo xamante ne dinaa la ko sañse tak kenn doo gis ku ko sol sa xew wala ku lay demine sa xew ci soo Sooda Pouye Fashion parce que kele yooyu man maa ko am. yéen a ko déggandoo nag wax dëgg neex yàlla mais gis naa fi ay sac gis naa fi saak estrage gis naa fi saak saak sac gis naa fi saak daal ay sac yu am jàmm. saag yi nag euh, saag marque la parce que saag yi dafa bëri tuuti am na chinois waaye original saag la. ban xeetu marque la nii. yii marque bu nee am na fii. am na gëstu yaa ngi dégg am na joor. yëpp am na fii motif boo fi bëgg aussi am na fi gis naa fi saag marque high class. c'est très joli high class moo fi nekk. yëpp marque la yëpp saag yi am classe la garantie 10 ans lu ci boo ñëwee ma delloo la sa xaas xanaa neex na. yéen ko dégg garantie 10 ans biir Soda Pouye dinaa fi ñëw. gis nga pochette yaa ngi nii. Uh-huh. cristal yaa ngi nii. Mm-hmm. bi ma teew ngi nii am classe bi bëgg dee ànd ak dàll yi. Ah, jëlal ma kaw gi. waaw déggal lii <laughs> mais gis naa say dàll tamit mu ànd ak mu ànd ak mu ak sac bi. mu don lu fashion don lu nice Li ensemble la dafa melni li ensemble la. par ensemble la. sóoru pou fashion ko ko mané wala fallu ndax fallu mo mo géré fi wal mo yor mo walu liggéey bi mo yor walu lepp moy sama rak ñu bokku ndey ak baay jàppale ma ci liggéey bi aussi dolel ma. dina seet fallu dina fi ñew fallu ana nga dina fi ñew fallu mo mo géré fi mo nek fi mo mo nek fi après mom dina ñew après su ñewé yeen di ngeen mëna cause mu jox la numéro aussi mom mo fi nek mo fallu Aïcha yéen a ko déggando ñu ngi fii si Touba marché zangi comme ni ma len ko ci si Soda Pouye fashion léegi naka dañuy bàyyi Soda mu def tàggatoo bu dul tàqalikoo ko. waa léegi TikTok bi ak Instagram bi yooyu yooyu yëpp Fall moo ko géré. Fall dinañ la jox numéro bi léegi. Fall moo géré loolu. TikTok bi ak Instagram bi wàllu kii bi WhatsApp bi yooyu yëpp moom moo ko géré. parce que Fallu Fallu ñëwal ñëwal <laughs> ñëwal booy daal tubarkàlla soo du juumoo de. non juumuma kii sama rak la mënu wax aussi. sama rak la ñu bokk ndey ak baay waaye dama déggal. Mhm. moo jàpp ci liggéey bi moo ma doole xam nga ñun jigéen ñi mun ñu waaye moom moo ma doole parce que dafa jàpp sama liggéey. Mhm. moom place bi buñ ko sancee sax si jëmmam moom la bokk. moom dafa baax. Gorée moom moo géré fii ku ñëw fii nga koy fekk Fallou fi fi moom mooy sama Fallou bu sa càmmiñal yow yaa yor wàllum Instagram bi yor wàllum TikTok bi Aïcha tey ku bëggoon a abonné biir Soda Pouye Fashion ak nan ngay def ba am compte yi. waaw da ngay moo nekk si Instagram bi moo nekk aussi si TikTok bi. jamono ji Fallou Fashion ñaata villa. waaw bëri na. Ah. tellement dafa mel ni Soda Pouye Fashion et suivi partout dans le monde. oui est suivi partout dans le monde. ndeysaan Oui. merci beaucoup Fallou aja Soda ñu def tàkko bu dul tàkkali ko. waaw ah, maa ngi gërëm ñëpp nag euh, di gërëm sama yaay. bu baax a baax di gërëm sama papa. di gërëm sama nijaay. di gërëm sama borom kër. Eh. di gërëm samay rak yu ma jàppale ci baag yëpp aussi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ah, di ñaan ñëpp nag kilifa diine yu may ñaan yëpp maa ngi leen di gërëm mënu ma leen fay de lim juum maa ngi ñaanal Sénégal am jàmm ñëpp am jàmm ak numéro bi 77. 77 518. 518. 82. 82 85. léegi euh, maa ngi gërëm nag sama clientèle yi parce que ñoom ñu ma dooleel ñu nekk bitim réew xoolal mhm. Brescia ba Gabon Napoli yaa may dégg ñoom ñëpp maa ngi leen gërëm ak waa Sénégal bu baax ñu ngi may doole fu ma nekk ñu fekk si ma jàpp ci liggéey bi teg ci loxo mënuma ma leen fay maa ngi gërëm sama clientèle yi cat ba cat mënu mhm. leen fay ndax GP yaa ngi dox mhm. gars yaa ngi dikk waa Sénégal ñu ñëw ñoo ngi sàjj ñoo ngi rëkkalu dara jërut